joué écran géant made donc euh, juste que machine bi day euh, day défiler ay images donc euh, fii maa ngi bind PSE plan Sénégal émergent donc fii chaque dix secondes day changer image temps bi maa ko choisir mën na doon quinze secondes mën na doon vingt secondes ça dépend par rapport ak image ban temps ngay jël fekkoon ay écriture la dina mën a plus bind bi par rapport ak image yi la donc bu ñu amoon image donc dama koy aligné ak bind bi donc plan Sénégal par rapport ak réalisation bi donc noonu laa defee imagine daal donc c' juste que pour que j'ai vu que à Mbour y' a y' avait un écran géant tombé toujours en panne je me suis dit que pourquoi pas créer loo xam ne vraiment dina mën a changer lu bëri daal waaw bi boo xoolee mu nekk comme président la il faut ku fi comme lu mala buy wax rek. moo tax ma kii ko moom moo créé hôpital yi donc image la ci boo xoolee côté mbéy bi la genre yu mel noonu donc maa ngi choisi quelques images par machine bi mu laa créé woon si coronavirus bi machine boo ko fàttali loolu doon jox masque loolu ndox doon jox saabu loolu doon jox euh, loolu doon wasu loxo. machine bi particularité moo doon moo doon machine solaire la woon aussi moom boo doon romb sa moo doon woo kay raxasu donc loolu laa ko réalisé doo laal kenn xam nga boo te ma defoon pour lu ñu soxla woon lépp laa defoon si machine bi donc peut ñu ko utiliser peut être fii bi machine café bi la donc machine café bi ba léegi moom fi donc ñaar la woon bii laa tudd woon yow mën ngaa jaay mën nga boo bëggee nga jaay sa bopp su nga doon dugal xaalis bi. après doo koon laal sax parce que taal si loxo tas bi génn après kii bi euh, je pense que lii yëpp tamit ba léegi war nañ ko mën a exploiter daal te lii daal suñ ko defoon daal dinañ mën a dinañ mën a moderniser lu bëri daal donc machine yaa ngi fi donc maa ngi fi donc man moom ba léegi su suis disponible pour partager yi avec tout le maa ngi jëm nag fexe comment faire nag pour réaliser ko déjà defar machine yi rek day jël temps. Mhm. day demande ça demande beaucoup de moyens je pense que c'est occasion la ñu gën see taxaw daal. ñu fàttali daal affaire daal ñu gën see taxaw daal bonjour asalaamaaleykum ami téléspectateurs yu Dakar Buzz euh, nuyu neen leen bu baax a baax di leen di dalal rek ci seen émission Génie Kassé tey nag man ak sama équipe dañu déplacé wu ñëw ba Mbour euh, daal di rek seet si kii di Malick nga xamante ne benn jeune la vraiment bu talentueux aussi mu créé rek benn écran bu ñu dippee écran géant maître en Mbour dama koy bàyyi rek mu daal di waxtaan ak ñun mu wax ñu carrément lu mu créé. salaamaaleykum maaleykum salaam. def Malick. maa ngi fi rek jàmm. waaw man euh, maa ngi tudd Malick nekk euh, fac science comme physicien chercheur nekk en même temps peut-être côté politique je suis un mission à la présidence nekk cabinet président comme conseil technique donc euh, par rapport ak machine bi bii mooy sama quatrième réalisation parce que premièrement ba ñu waxee coronavirus maa njëkkoon bokkuñ njëkkoon créé machine lavage ba après man maa créé woon machine café Touba bi pour doon jox xaalis mu jox la café Touba. aussi créé woon naa fi tamit benn machine bu lay jox mburu jox la lépp mu tuddoon kaay ndogu donc bii mooy sama quatrième réalisation daal waaw. léegi Malick mënoon fekkee da def formation wala daal idée man léegi man depuis des années man saa sumay dox rek damay xool loo xam ne peut-être bi ñu ko defee dina mën a soulager nit yi daal donc man saa su nekk loolu laay xool donc machine écran géant bi lu ma gën a motiver mooy fii biir Mbour defa am benn écran boo xam day tombé en panne saa su nekk et je j'ai vu que quelques images lay génne donc sur ce ma toog xool comment faire nag pour au moins faire défiler des images daal donc sur boobu laa jël sama temps xool def ay calcul bind samay schéma ba defar machine bi donc ça m'a pris presque presque trois mois pour bind circuit bi parce que peut machine bi peut-être utilisé naa fi lu bëri côté fil donc utilisé naa fi lu bëri daal. léegi euh, ma bëgg a xam rek composant wu machine bi parce que gis neen ay écran yuy défilé par exemple terre beeg photo Macky Sall bëggoon xam rek lan moo nekk composant euh, machine bi ak aussi ñaata temps la la la la jëlal bi nga koy produire fekkee des années la des mois ou bien. non machine moom maximum peut être deux mois trois mois la ma la ma la ma la ma dëkkee boo xoolee sax bi mooy peut être bu ma njëkk def dama ko defoon voté benno parce que dama doon ñëwoon si contexte électoral. donc après léegi dama ko defat plan Sénégal émergent donc pour mun bi boo xoolee machine bi lépp local la boo gisee affaire aluminium la donc ñooy liggéey fi lañ nekk ay suul ay menuisier métallique yi à part fil yeeg branchement yi si def daal lépp daal ay menuisier métallique ñu ma koy defaral daal damay dem toog na defar leen lii suudal ma ñi defar ko daal ci wàllum euh, kii maanaam euh, budget en terme budget ma bëggoon xam rek ñaata nga dépensé pour euh, fabriquer. budget moom en genre day bëri parce que. doo doo xam fu ngay dem daal des fois da ngay jënd affaire sànni jëndaal beneen affaire yi xam nga donc peut être lu nga siy sànni rek ëpp na lu nga defaree machine bi parce que tey jii mu la ubbiwoon sama saag bële da nga fekk presque ay tonni tonne fil ak ay yoo xam ne da nga koy baax après du baax koy changé donc loolu la daal mais pour toog tooguma daal xam exactement li laa dépense li laa fi def daal mais l'essentiel daal ku daal dina ma dëkkee presque day tombé daal dama yor xaalis daal li ma yor daal laay def jënd fii avancé moom daal financer sa bopp. waaw man moom man maay man maay man maay jóg maay jënd fil maay takk maay def lépp vraiment machine bi presque maay travail lépp man ku ma siy liggéey man def lépp ba génne ko daal waaw. Euh, kon alors mën na dégg ne wala ma jàpp ne yow da ngay liggéey. waaw waaw na may liggéey donc donc man euh, comme ni ma la waxee rek donc avant peut être professeur woon après léegi dama nekkoon si politique bi donc ñu nommé la présidence donc je me suis war naa nekkul ne dama doon politique rek il faut ma gën a am temps pour mën a gën a servir dëkk bi daal nit ki moom nekk bu si jàppee rek dina dox donc boo xam ne bu nekkul ne politicien rek boo fi nekk nit donc politique boo si nekkee tamit war ngaa a tax xam nga côté boo nekk nga jóg liggéey si daal te aussi tamit lu mu gën a motiver mooy soo xoolee médecins yi ñoo ngi faj avocats yi ñoo ngi àtte ouvrier yi maçon yi mu ngi tabax ñun scientifique aussi war nañ mën a defar inventer loo xam ne carrément dina soulager dëkk bi donc loolu mooy mooy attiré sama mbokk scientifique yëpp ñu toog tamit ñu jàppale leen daal lu ñu war a jox ñu jox leen ko ñu gën a mën a am puissance gën a am moyen pour mën a avancer dëkk bi daal. léegi machine bi di écran bi tur bi fan la jógee turu euh, bi dama ko jëlee comme par rapport a écran géant bon romb fu laa génnee tur bi daal maître Henbourg bi comme Mbour laa dëkk donc pourquoi pas mu bind maître Henbourg xam nga au moins valoriser sama dëkk daal donc moo tax ma tuddee ko écran maître Henbourg Euh, utilité machine bi lan lay doon lan lay machine bi di machine bi moom fois que mun na nekk partout parce que machine bi taille bi ab benn prototype bu ndaw la mais machine bi mun na dem ba 3 mètres écran bi parce que mun naa ko yóbbu ba mètres ba 2 mètres ça dépend si besoin bi donc je vois que machine bi war na nekk partout ah mun a war a na nekk si aéroport yi si restaurant munu yi bu ndawam war nekk euh, si marché yi fu ñu publicité war na nekk si orange yeeg ñëpp war nañ ko mën a soxla daal c'est-à-dire taxaw rek war na mën quoi c'est-à-dire que machine bi rond point yi ñuy def écran géant machine bi war na fa mën a nekk te am na possibilité bi je sais que tey jii mun naa garantir mun na daw normal comme tous les machines waaw loolu bi moom vraiment par dëgër na parce que fer la lépp dëgër na daal man je pense que peut-être kii moom vraiment mun na xam naa daal moo a dëgër écran yële que dëgër na daal te lépp presque ay fer la yu ma defar yoo xam ne carrément moo koy téye daal. est-ce que aussi bi nga koy defar amoo benn jafe-jafe maanaam risque parce que lépp a nga xamante ne yaa ngi ciy def sa loxo rek peut-être tey jii dina am avantage waaye tamit dina am ay inconvénients ma la doon laaj rek ndax amoo ci benn jafe-jafe bi nga koy produire. c'est-à-dire man sama kii yëpp xam nga tey jii fee da ngay defar pour am lu mu siy xaar peut-être dina yàq sa ambition quoi man vraiment damay réaliser pour réaliser donc peut dina jël sama temps parce que 15 jours avant des fois da lay fekk boo xam ne da ngay soxla benn fil bu ndaw nga mel noonu donc xam nga doo am looy tal daal te doo doon 15 jours yoo xam ne day metti daal da ngay topp action bi daal ne doo nelaw parce que da ngay topp benn circuit di ko topp di ko xool na heure bi na nga xëy fajar nekkaat si pour trouver ko daal cest à après xam nga mais lu neex daal lii si neex daal après xam nga boo amee lii daal vraiment c'est bon daal États-Unis aussi jot nga cee am ay commande maanaam ñu ñëw rek commandé la ne carrément dañoo soxla pour nga defaral leen wala bii rek la. waaw machine café tubaab moom saa su ma dañ ma woo donc peut-être euh, c'est-à-dire que peut-être ko bëggee moo dul noonu rek cest que su ma tey jii ñu gën ko utiliser partout parce que man ñëw ma pour garder ab pro garder kii bi kale ko man ne woon naa man pare pour partager ko ak tout le xam nga ñu moderniser ko quoi mënu tey jii. mënoo jógee aéroport ñëw di fa fekk ay café espresso yu mel noonu fekk ko fi café Touba par exemple tey mënoo ñëw fi tey jii ñëw pour nga importer benn écran géant il te faut des millions xam nga donc yoo xam ne vraiment ñun bu ñu ko taxawee defar ko dina mën a amortir lu bëri daal ñu bëri nag ñoom may am na ay restaurant yu may jote woo yu bëri ne ma benn instant ma leen machine dama koy doog a génne donc toog xam nga créer benn équipe ñu xool comment faire que mun ko partager tout le monde daal waaw comme say morom yu bëri am na ñenn bu ñuy créer parfois dañuy am yenn moment maanaam moment yi nga xamante ne seen force si lay lii seen idée tamit euh, maanaam seen esprit si lay gën a ubbeeku ma lay laaj rek ban moment de la journée peut-être wala ci nuit bi yow ban heure daal ngay gën a inspiré wu. man moom man moom damay wër rek man moom xam nga ça ça dépend rek ça dépend rek man mom su ma amee temps toog naa def naa lu may def avancé naa daal donc mun naa durer une semaine nekk ci tëbaat dem ñëwaat daal donc ça dépend lu ngay jógee dem noonu. donc man machine bi bu ma ko defee tam loolu la toog sama petit frère ba ma ko rombee expliqué mu ne ko peut être lii ak lii def machine bi donc j'ai après ma attaqué quoi cest boo ñëwee moom si menuisier métallique bi day am problème parce que lu bëgg moom du ko mën kii da ngay dem ànd ak moom rek des fois da ngay jënd ko kenn xam nga doo xam nu nga koy doyee da nga ko war a am nga si soxla donc xam nga peut être doo xam seen tur da ngay ñëw ne ko soxla naa lii ak lii ak lii xam nga loolu moo si xaw a métti daal wër bay xaw a métti daal wër daal mooy xaw a métti tey jii bu amoon kenn ki nga xamante ne peut-être mu ngi extérieur gis li ngay def mu neex ko torop mu woo la nga dem liggéey ak moom est-ce que tu es prêt pare nga pour dem wuyeeg. waaw lii moom xam nga tey jii première liggéey la mais normalement li war nañ ko gën a mën a moderniser sax quoi jëm si habillage bi ku nekk sa xam nga loolu suma liggéey donc man am na tey jii ñu waroon mën a ñëw habillé ko ñu war gën a mun a def xam nga. donc peut être am na ay ingénieurs yoo xam ne pour mën a jox idée bi dañ a mën a développé donc je pense que lii daal ab base la boo xam ne ab départ boo xam ne tey jii mën nañ ko gën a exploité ba mu a si région liggéey si daal c'est-à-dire dina mën a moderniser lu bëri quoi parce que vraiment affichage yi ni metti donc ku nekk xam nga donc jaxasoo na daal war nañ ko a moderniser xam nga au moins yii te xam naa après la ko image yi une minute nga changé ko def si beneen image su la sànq ci début bi maa ngi euh, tamit balaa peut-être ma lay nga jox leen conseil ban regard nga am ci ñoom ci man damay nekk si tool yi par exemple damay gën a xaw hors sujet damay am benn tool fee dama fay nekk di béy mais je vous ñu fa nekk yëpp ay guinéen lañ à man ma fa nekk Sénégal ak benn Sénégal ñu fa nekk yëpp ay guinéen lañ tey si soble bi chaque année dañ ci gagné ay millions dañuy dem donc man lu may wax jeunesse mooy ñu dellu si tool yi quoi def tuuti ñu liggéey cest à toog si ville bi nii xam nga loolu peut-être am dina peut am na njëriñ mais dana xaw a manqué daal man j' ai j' invite la jeunesse ñu dem si tool yi ñu jéem a liggéey parce que dëkk moom pour mu dox moom il faut lekk bi mot te lekk bi lu koy motal mooy ñëpp il faut jàpp si mbéy mi daal dara yombul nag de dara yombul dëkk bi nag métti na comme partout dans le monde fépp la méttee mais nañu gën a góorgóorlu daal di ñaan tamit gouvernement ñu gën a gestu jeunesse bi jeunesse aussi tamit muñal gouvernement ñu ànd ensemble daal ñoo bokk Sénégal daal bu ñu amee jàmm ñu ñun la a nekk par rapport ak li ngay def nii moo nekk métier bi ngay inventé di créer ban message nga ci mën a lancer gouvernement bi peut-être wala ñeneen. nag damay profiter occasion parce que man parce que maa ngi ci biir cabinet bi donc je pense que tey jii bu ma maje ba ma paree machine café Touba sax toogoon nañu waxtaan noonu bañ ñu pare woon nañ jàppale ni jéeg yooyu donc je pense que tey jii aujourd'hui war nañ gën a mën a jàppale jeunesse bi par rapport ak côté boobu parce que. nit ki bu defaree dara boo ko ko jàppale ba ñooñu jeunes yooyu bu ñu leen woon peut être dañ mën a defaat leneen quoi mais bu fekkee dañuy defar tamit gars yi tam peut defar mais peut être kenn xam ne amu man si si je a génne benn budget jàppale jeunesse bi quoi surtout à la faculté des sciences tey jii gars yi nekk te ñëpp fa ça suffit que tey jii gars yi gestu leen rek nu ñuy jàppalee fac médecine di ko jàppalee fac droit di ko jàppale yeneen faculté yi ñu taxaw fac fac science parce bu leen taxawoo vraiment gars yi dañ mën a def leneen leneen daal waaw. côté ne war leen mën a taxawoo. labo yi gën a taxaw si labo yi parce que labo yi a jàppale yi parce que lépp fac science lépp labo yi la TP la mooy travaux pratiques yi donc suñ labo yi gars yi dañ gën a am expérience dañ dem parce que sinon dina gën a baaxal si cours yi parce que cours théorie bi il faut mu pratique. donc gën a jàppale labo booy gën see taxaw gën jàppale science bi daal Sénégal daal mu gën a ko quoi parce que dëkk fi nekk juriste ñoo fi nekk ñu fi nekk économiste ñoo nekk science dañoo xaw a dem benn côté il faut ñu taxaw leen ñu jàppale leen waaw il faut parce que ñoom moomewuñu wax bi donc lu ñu mën a moom mooy liggéey bi donc il faut ñu jàppale leen au moins lu ñu nekk ñu gën fee taxaw parce que pour nga nekk ingénieur il faut nekk scientifique pour nga nekk lu lu lu mu doon il faut donc faculté boo xam ne la ak département boo xam ne il faut ñu taxaw bu baax baax a baax a baax alors képp ku gis li ngay defar ni mu intéressé wu ci ma lay laaj rek naka la mën a def wala fan la mën a jaar pour mën a jox ak yow wala rek am li nga xamante ne yaa ngi koy defar. waaw man léegi yow yéen avant tout sax dama leen di féliciter di remercier parce que vraiment seen liggéey rafet na donc joge ba Dakar ñëw ba Mbour pour vraiment pour jël lii donc vraiment yéen yéen a ngi def seen waar daal te dañ leen di encourager daal donc man moom peut-être mbuur ngi donc. vraiment je le pour le pays donc yow mi nekk Dakaractu tamit ku bëgg Dakar Buzz tamit m'excuse ku am contact tamit tamit bu ñu ñëwee si yéen tamit peut être dina mën a jot daal waaw dina mën a jot daal di remercier ñëpp waaw di remercier ñëpp daal. Euh, Malick gannaaw loolu nag gannaaw bu ñu waxee sa machine bi mënuñoo wax tamit ba pare te duñu wax situation dëkk bi surtout nag côté politique ma lay wax rek di la laaj aussi lan nga gisee nan nga gisee opposition bi ak euh, parti au pouvoir bi seen doxalin ak yooyu. non man opposition ma gis cest à que certes ñoo ngi def seen liggéey parce que dëkk bu nekk dafa war a am opposant xam nga du ça veut que ñooy au moins bu ñu ko war a def dara ñoo koy fàttaliku ni nga war a def mais dafa dem boo xam ne day mel ni puusal ma toog laa fi gis quoi cest di que day am nga day mel ni da ngay jël ni ki ko bañ daal et je pense que tey jii fu ñu toll nii que situation bu ñu toll si monde bi fépp la difficile parce que monde bi fépp la méttee donc mais n'empêche man fu ma bokk muy ànd ak son excellence dañ koy remercier di ko jàppale parce que fépp mënut a neex daal te njiit moo metti parce que mais ni ñi defuñu ñu jéem gis peut-être lu muy def donc euh, je pense que déjà le 27 on va inaugurer le TER te man ñu ma doon expliquer man leen bu fekkoon Ablaye Wade amoon vision en 2000 xaw ma je ne sais teg autoroute à péage bi kon heure bi Dakar kenn du fa dugg parce que ba mu koy def nit ñi yëngu yuuxu parce que dafa am benn vision tey son excellence Macky Sall. tey boo xoolee péage bi sax mu ngi am embouteillage lu mu def nii terre bi mu def nii bu amul vision def ko heure bii xaar ko dans dix ans ñu ko def kon Dakar kenn du fi dugg dans dix ans parce que affaire day yokk donc affaire question de vision la quoi donc je pense que benn affaire boo xam ne ñëpp soxla nañ ko te di ñaan ñëpp ñu ànd si liggéey ensemble cest à que keneen fi ay dialogue xam pour que nit ñi mën a ànd ensemble liggéey ensemble daal man daal loolu laa gis daal ku gagné daal doxal sa dëkk ku ñu gagné tamit nga nangu rek ñu ànd ensemble xam nga Sénégal fi nekk daal fi ku falu yàlla lay fal ku follu yàlla lay folli donc loolu daal moo fi nekk waaw. Euh, Malick lan mooy doon sa kàddu bu mujj. sama kàddu daal di sant ñëpp sant Sénégal ñu may jàppale ñëpp waaw gërëm moom professeur Grégoire Sissoko donc c'est un grand professeur à l'université Cheikh Anta Diop waaw nekk professeur titulaire des universités dëkk Thiès. formé ñu bëree bari nag si si si Sénégal ak si monde bi donc c'est une occasion di ko encourager parce que tey jii ñu mel noon duñ leen xam te jii kooku jàngal na jàngal na jàngal président jàngal na ku nekk donc di remercier tous les responsables jiital Serigne Gueye Diop mu nekk Sandiara moom moom presque nekk sama responsable bi biir Mbour di remercier Nanga Ndaw sama grand frère remercier mon ami Rawane nekk France tey jii ab ingénieur la donc lu bëri tamit ñooy partagé suñu travail ak yooyu boo limee da ngay jum kon comment ne di remercier ñëpp daal di encourager ñëpp daal ñu jàpp si parce que muur ñoo ko bokk su doxalee daal ñoo ko doxal di remercier di ñaanal candidat yëpp tamit képp ku nekk candidat benn bokk yaakaar peut être nga am ndam daal te ku mën a gagné tamit ku gagné tamit ñu ànd ak moom tamit jàppale ko daal waaw laal daal laa gis man.